toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Déjà, nous sommes fi parce que je pense que tant que nous sommes ba nous avons un choix et notre choix c'est le choix idéal et on est prêt à faire à quoi qu'on puisse dire que a toujours été là pour la commune. Elle a rampé jusque-là malgré son, jeune âge. Elle s'est imposée. Dans la bataille, 2014 ba léegi moom et tout d'abord c'est un enfant de la commune elle est née dans la commune et elle a grandi dans la commune Bob ba mu campagne di dem ni l'union wax que ni une première adjointe au maire le l'école, mais avant l'ol elle elle a été la directrice de cabinet de Palla lors de son premier mandat lors de son deuxième mandat mu première adjointe au maire elle a rampé jusque là elle s'est imposée malgré son jeune âge te l'ol nous sort là commune bi du commune par parloo du commune bo xamantene Nous, meun na len jënd ñun dañuy dem ak suñu ngor nous gore wéetaliku goré. et on assumera notre choix jusqu'au bout ñu ci dara pour nous du Diène reste et demeure le choix de la jeunesse la continuité merci conseil de quartier nak du ci commune yépp la am Bala Samb mettre en place pour nous nekk relais pour relais entre le conseil municipal et les populations Nous avons depuis 2013 non 2014 a le may au deuxième mandat 2023 il y mais bi muy dem nous nañu ak bras droit madame Sambou Palla nak ñu and ak mom ci dignité and ak mom ci conviction and ak mom ci principe parce que ku xam Palla xam ni da doon xex pour autonomisation de la femme ku xam Palla xam ni da doon xex pour promotion de la jeunesse donc ñun jeunesse bi nga xamanteni ni ñoo nekkoon ak mom ci campagne bi xex sillonner toutes les rues de la commune jaar ci sept quartiers yëpp ñun ñoo taxawaat tey jàkkaarloog suñu conseillers yi pour wax leen ni que suñu voix. gaa ñoom ñooy voté waaye ñun ñoo leen fal ñuy ñaan nag ndax suñuy yaay lañ suñuy mag lañ suñuy papa lañ leen lañ leen di ñaan mooy ñu bàyyi xel ni mandat bi mandat paala la cinq ans la yàgg na yàggul nañu may rek ñu yeggale suñu yéene piis 46 personnes mënuñu fal maire donc ñoom bu ñu nekkee ci conseil municipal bi ñun ñii jeunesse bi ak mag ñi ñun ñoo leen fal toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.